àndal tamit site bi ñu àndal mooy Thiamène TV oustaz Ndongo Thiam mi yore ko di xale bu yaru ànd ay xale yu mën a liggéey mooy Touba Thiamène TV képp ku yàlla dogal nga man ko rek maa ngi ñaan nga abonné ci seen bi nga xam mooy Thiamène TV yëpp jàng yu am wala programme boobu bu jëm ci diine mën na faa ñëw jëlal la lépp dugal la ko ci réseaux sociaux yi nga xamante ni dina dem ci àddina ngeen man ñu man koo seetaan kon mi ngi TV Serigne Ndonga Thiam moo yor ak xale yi maa ngi ñaan sa borom barkeel liggéey ci dara ji Serigne Touba bu demul jàngale yi fu ñu ak man jël leen ko ci internet bi nga xamante ni lu ma dara tey dama ko ne dama dama dama ko fàttewu ko dama andi sama wifi ñu balance ko nga xam dañ ko def direct nga xam dañ ko seetaan fépp waaye nag noo ngi ñaan ci dara ji Serigne Touba suñu borom yokk matériel bi ba nga xam ne foo bëgg a àgg da nga fa àgg te rëy Sëriñ Tuubaa mu dem ba doon ay télévision ci barke maam